asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yenn tàmbu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu soo nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarala gi ñu ngi nuyu moo Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko. ko mbokki tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci Ousmane Sonko ak xew-xew nga xam ne xew na ci réew mi rek ci diggante réew mi. wala digganteem ak waa APR sax wala takk der yi euh, lu ci mën a xew rek balaa booba ñu ngi ñaanal maître Abdoulaye wadd yàlla féq aw fanam te gën koo yàggal te wéral yaramam ndax da doon def fan yi anniversaire boo xamante ni mi ngi am quatre vingt quatre vingt ñu ñaan suñu borom dolli at yi dolli wér gi te dolli ko wërsëg président la boo xamante ni jàpp nañ ne président yi fi awagul ku ko ci gën a rafet aw woy yaakaaruma ne. am na wala ku ci gën a rafet daanee lu woy yal na yàlla fekk fanam mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci xew-xew bi nga xam ne xew na Ousmane Sonko jóge woon fële nga xam ne mooy Casamance ne day def euh, nu mu tuddee caravane de la liberté boo xamante ni daf koy jëlee Casamance ba ñëw fii ci Ndakaaru ginnaaw bi nag ñu dakkal ko ci ñi nga xam ne ñoo ko dakkal Ousmane Sonko nettali na ñi nga xam ne neen da ko indi ko cité kër góor gi wala man site kër Ousmane Sonko sax waaye cité kër góor gi yàpp naa la fa Ousmane am buñ ko dindee la fay def ci góor gi du bareeti de eh, Ousmane Sonko leeral na ni ñu def ba indi ko eh, nit ñi tamit xalaat nan xool nan ay borom xel lan ay borom yu bët leen gis na ni def ba indi Ousmane ministère intérieur bi tamit génn na wax li nga xam ne tamit ni lan def ba indi ko ak seen ministère bi nga xam ne mooy seen porte parole bi. te moom xam naa ne porté gul parole bi ba léegi mooy ministre Fafana la xaw ma jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla ni muy communiqué am na ci noo xamante ni ñàkk porté communication la. yal na ko yàlla li mu ñaanal Ousmane Sonko ne Ousmane yal na ko yàlla defal feebaru wax dëgg mu dal ko waaye moom it yal na ko yàlla fit ci aw làmmiñam ba mu mën a communiqué communication bu baax. ndax euh, Ousmane songo mi nga xam ne moo jonjoo yëf yi nettali nañu ni mbir mi demee. Euh, ministère intérieur tamit nettali na ko te jàpp naa ne moom dañ koo nettali mu nettaliwaat Ousmane Sonko nag dafa nettalil boppam amul interprète moo nettalil mbir bi moo jonjoo mbir mi moo ko nettali du ma ne li mu wax lépp dama koy jël gàddu ko euh, yanu ko mu doon sama symbole waaye tamit du ma jël lépp di ko màbb ministère intérieur tamit li mu wax du ma jël lépp gàdd ko waaye du ma weddi tamit ndax xañ na fa muy tibbee wala fa muy amee Euh, man duma ko yëg duma ko fekke dëgg la nag boromi xel lan yoo xamante ni xalaat xalaat boo xamante ni duñ ko yàkkamti te danañ ko xootal te danañ ko jox àqam euh, Ousmane songo jàpp naa ne lim doon def euh, bi mu koy def dafa jóge def déclaration bu fekkoon ne koo xamante nii la lii ci xeeñ wala lii ci nuyoo muy moor bi ci am bu fekkoon ne xalaatoon nañ ko ay boroomi xel lan wala jàpp nañ ne mën na cee am booba lan waroon a teel a arrêté yëf yi booba lan waroon a teel a arrêté yëf li indi yëf yi tamit mooy Ousmane songo fu nu dem ñu leen di taal ay lacrymogène ay garanaat di leen ko sànni ne dañuy fasful bi loola bokk na ci li indi moor bi jàpp naa bu ñu leen bàyyi woon rek ñu dem nan jógee Kolda euh, Ziguinchor ba Kolda dara xewut xat demut dara jógul jàpp naa bu ñu leen bàyyi woon noonu la ñuy def ba ëgg si dëgg la nag ak seen noonu Dakar xañ na man naa am am na ñoom lu ciy seen responsabilité ndax koo xamante ni foo jaar mbooloo mi génn àdduna bépp génn euh, te euh, ab leader politique nga wax dëgg yàlla dama ko waxe woon man naa euh, mën naa mën naa mën naa mën naa daane kaasu attaaya mën naa daane kaasu attaaya bu nu la jox nga toog di émancé di xool nii sa kaas bi mën naa rëcc te doo ko yëg beneen bi ci des ñoom ñii ni ni communiqué Ousmane ministère intérieur bi nee na fekk nañ ca fital fekk nañ fa fitalu boppam xañ na ak lasper Ousmane Sonko sax bi muy leeral dane fekkunu fa sax lasper sax fekkunu ko fa lu sama arme boo xamante ni am na ay këyit am yëpp nee na bi ñu koy jàpp mu daf leen ak question yi ñetti question ne leen saag bi ñu ne ko lu fi nekk ñu ne ko yullil saag bi mu ne leen yulli leen ñu yulli ko xool ne gis nañ fa portable ñaari portable am ak buñ ko may boo xam dajjeeku ak ordinateur u ak kiyu boppam nee na ñu jël ko ñu ne leen lu ngeen may def pour lan la ñu ne ko dañ lay yóbbu sa kër léegi mu ne da ngeen cee am ndigal dañ leen jox autorisation jàpp wala de ñu ko déedéet dañ laa jël rek pour yóbbu la jàpp naa ne autorisation wala droit moo warax na nañ jëli Ousmane sonk nañ ko jàpp loolu war naa ne mu ne loolu amul ñu indi ko ba këram bi ñu ko indee këram ñu barakaase këram ne kenn du dugg kenn du génn. loolu it boo ko seetee seet la fa xew lépp Ousmane Sonko bu ñu ko dugalee këram koo xam ne gëj na këram ñaata weer wala ñaata fan yoo xam ne xamuñu lekk nga fa xamuñu naana nga fa xamuñu am na garab yu muy jël xamuñu dara lu muy kii xamuñu lekk nga wala naana nga fa ñu ne ko doo génn kenn du génn ci yow kenn du dugg ci yow kenn du la fekk ba ca attaa say yi nga am sax dun dugg ak chef religieux ku man doon di la seet amul droit dugg ndax Serigne Abdou Mbacke dem na fa di ko seeti ñu ne ko mënoo dugg waa M24 dem nañ fa di ko seet mun ñu ko mënoo dugg en tant que député ak responsabilité bi mu am dem nañ fa ñu ne leen mun leen dugg wax ma la mën a dugg sax waaye dóor la ay lacrymogène ba ñoom ñu tasaaroo loolu jàpp naa ne te loolu euh, ki ko sañ wax nañ ne faw loi bi moo war a wax wala euh, siis wala dara moo war a wax ne kër Ousmane Sonko dañ ko interdit ku fa dem wala ko dugg te loolu bu buñ ko defoon communiqué sax dina gën a yombal yëf yi ndax buñ defoon communiqué ne Ousmane Sonko dañ koo jël indi ko teg ko këram euh, du génn moom kenn du dugg këram bu ko defee ñu ko dégg ñëpp xam ne kii kat comme def nañ communiqué ne nangam kenn bañ a déplacé dem mais nit déplacé ba dem ñu dóor ko kii ay euh, taxi yoo xam ne dañuy daw di wuti dépasse bu nu kii ñu toj seen pare-brise ak yooyu yooyu jàpp naa ne yu gis naan Farba Ngom Farba Ngom muy wax wax joo xamante ni wax ju ju ju boroom xel yépp ñu ngi ci xalaat te loola jàpp naa ne mal communication ak nguur gu metti ci ñoom ba yóbbu seenam xel moo tax ñuy waxe ni ndax bu waxee ne garsa garsa gi Ousmane waxoon te ñoom ñu koy ñaawlu ñu àgg ci ne garsa garsa gi nag jot na léegi ñu kii euh, léegi ñoom ñu jóg garsa garsa googu mu jóg daal di wax ne nanu bàyyi ba le premier sodi le premier ba verdict bi daanu wér bi dina daanu wér bi am na nu muy kiyee ba wane ne kuy condamné jàpp naa ne farba mi waroon nañoo wax ak moom ndax moom dafa siisee mbir mi te ñëwagul te loolu naka jëkk mësu cee jóg mësu cee man jàpp naa ne parce waa APR am na ci ñu diiñ nag am na ci ministère ak nit ñu diiñ am na ci ñoo xam mësoo dégg seen tur seen làmmañ ñu tudd maanaam site bote ndax seexlu nan ko xam nañ ne du seen du seen droit dawaar sax du seen droit pour ñuy tudd site ba fi ndax amuñu nit ñi dégluwuñ leen ci site bote dégluwuñ leen ci mbiru Ousmane Sonko politique ak politique boo xooloon ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo mosoo ko dégg mu tudd euh, ku mel ni kii mi nu mu tuddati euh, waa ji nu mu tuddati Aliou Nguy Ndiaye mosoo dégg ñuy tudd yooyu Maymuna Mariama Sarr ak ñenn ñoo nga xam ne ñu diiñ leen mosoo dégg ministère bi moom dégg nga mu dem ba ensemble seen porte parole bi naa man su ma liggéeyee su ma wàccee bu nu ma invité télé dem ma site bote wala nangam jàpp naa ñi ci am personnalité dëgg-dëgg daal déggoo ñu tudd si di wax ci site bote sax wala ñu koy tudd Farba nag moom jàpp naa ne xelam mi dafa màggat xel mi moom moo màggat maanaam barke bu bare kii boo xam ne moom jàpp na ne moo war di tëgg moo war di tulli. beneen bi ci des saati tamit am na bu leen lor boo xam ñoom yàpp naa ne xamuñu ko mooy Mimi Touré mii nga xam ne dañ ko génne ci ñoom te mu yor communication bu baax gis ngeen ne semaine bi amul benn plateau bu mii Mimi demul daanaka site internet yeeg télévision yeeg yëpp te communication bi mu yor bu ko gën a garaaw ko amul dem na ba àgg sax ni président Macky Sall xam gi mu ko xam ak ni mu xam ci communication nee na buy ñàkk ay nitam day jëkki-jëkki xool chef bi mu toogoon wala fi mu toogoon ci réunion bi gis ñëpp daal di génn jóg dem te loolu jàpp naa ne li daloon Ablaye Wade Ablaye Wade loolu bokk na ci li ko daloon euh, bokk na ci euh, ñoom bu nu waxee comme ministre intérieur bi li mu wax noonu jàpp nañ ne bu nee kër Ousmane songo dañ koo tëj du génn kenn du dugg kenn du dem kenn mënul dem Ousmane songo li ñu ko def te loolu li mu indi ci résultat mooy toj yi ñu doon toj xale yi di lakk daanaka dara waralu ko dara waralu ko lu dul loolu ñu def te loolu lépp mënoon na ñàkk mënoon na noo leeral gis naa fa fan ñuy leeral ne danoo bañ turu mais nag yooyu c'est trop tard ndax li ñu wax naa médecin après mort ginnaaw yow nag nit ki da koo jëli yóbbu woo ko kaso nee nga da nga koo jël indi ko këram boo ko indee këram koy bàyyi ko mu amaat liberté yow nee na da xañ nit ñi ay liberté ndax daaw am ñu war a dem am njëkk mu leen di xañ moom mu dikk bi nga ko xañee benn kay mooy da nga ko war a téye ne ko doo demati doo dikkati. waaye indiwaat ko këram xañaat ko liberté waxuma la liberté boppam sax waaye liberté ay nit ak yeneen àq Ousmane fekk am na lu mu war a lekk wala lu mu war a naan wala njabootam war koo def mënunoo génn mënunoo kooku daanaka moo gën a garaaw rey sax moo gën a garaaw ndax parce que kooku lu ne mën na ko caa fekk bu bëggee lekk te amul lum lekk bëgg naan amul lum naan te kër gu nekk xam ngeen ne kër gu nekk dañuy xëy bu dee même bu ay félicitaires amee yun fay def ak ay ndugg ak ay nangam ak yooyu day jeex xamuñu jeex na xamuñu ma nga fa. mayuñu ko benn surf boo xamante ni mën na génn wala mën na kii loolu nag jàpp naa ne wax dëgg yàlla lu kii maane la comme Farba Ngom mii ma doon wax comme nii mu def naa sodi leen siise wala nangam mi ngi alerte loo xamante ni ak di xëcc loo xamante ak di wootan loo xamante ni loolu du moom yellut ci moom responsable te lii li tax nit ñi ci xaw tiit mooy bu jonn mi fi nekkoon ba muy wax naa te cinquante huit pour cent wala cinquante huit nangam ba mu dikkee ba nu dikkee nii la wane te ñoom loolu du seen cër seen cër mooy toog di politique beneen bi ci des ñu ngi génn di wax naa oh, xaw ma fan ñoom itamit waa APR ñun mën na noo def nii def nañ génn ba dem nañ ci seesu Pastef ba nee nañ ñu taal loolu du seen du seen warugar ñoom dañ leen a dénk responsabilité Ousmane Sonko kenn dégg ko mu ne taal leen wala yàq leen wala benn responsabilité boo xamante ni Pastef la nekk mu ne taal leen wala yàq leen ndax loolu dadul yoon jaaduwul tey jaaduwul ëllëg kenn warul taal kër jàmbur kenn warul yàq ndax ña fa nekk ci nit gis nañ ci boo xamante ni ay liir dem ba ci jàkka néegub yàlla ñu taal oto yi nga xam ne ku faatu te ñoom ñëpp nañ xam ne oto boobu faatu benn dinañ dugg ci oto ñu yóbbu leen ñu dem wala ñu ñu dugal leen ci pax kon nag loolu waroon nañ koo beneen bi ci des saat nanu xam ne loolu du seen responsabilité ñun bu ñu yàqee dañuy yàq bu ñu kiyee loolu du waruñu koo ŋas waruñu koo ŋas sax ba tàmbali di ko def ndax bu loolu mooy indi désordre cim réew ñi koy def kenn defloowu leen ko la tax ñu koy def nag loolu lañ war a vérifier ñin dénk ñu yox leen responsabilité nen vérifier xale yi ay xale lan yoo xamante ni ginnaaw ñoom ñeewante ak yërmande gu mettee tax mënunoo régler seen diggante problème nanu waxtaan ak ñoom ci ak dal ak teeg ndax xam na ni ñoo leen ëpp doole fu waaye xale bu jóg di tàññaaral ña nekk bitim réew nga xam ne yoruñu benn responsable naa leen dem leen kër sàngam dem leen tibli leen jóg leen te ñooñu doon waroon bu ñu wax jóg leen na doon wax leen suñu yaayee nga fële sunu maga nga fe sun doom a nga fe àndi leen sun doom wala waaye yow denc say doom di wax ay doomi jàmbur yi di leen yeetal wala di leen xëcculoo naa leen dem leen taal dem leen toj dem leen def nangam loolu moom benn nit bu am xel boo xam ne sa xel a ngi dund wala yaa ngi xalaat xalaat bu baax wala yaa ngi gis gisin bu leer yaa wala yaa ngi xam ëllëgi senegal loolu du sa cër du wax ju rafet loolu ku koy wax ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi wacc wax jooju di ko delloo ñu ngi koy euh, mettitlu